macha allah tubarkalla jëm ba créé. Ngoné Ndiaye amul ndey amul baay amul kenn man kese la ma bari jom lool macha allah la lu góor naa dinaa ko def suba ma gont def ko. lu téeméeri góor war def man benn jigéen ma koy def ci benn bés ci ngor ci fulla ci fayda gérer sama famille ba may Ngoné Ndiaye ba léegi famille laa ma sa yenu sama famille musuñu xiif musuñu rafle ma mësuñu mar mësuñu xaaraani mësuñu def dara ku leen gis xool leen ci kaw may daw rek nag Ngoné Ndiaye amul jëkkër Ngoné Ndiaye amul doom Ngoné Ndiaye yu bari da koo manqué mu am ngorom nag ma am sama ngorom bi rek am jom rek sàll bigee takk sama ndigg rek daal lu góor di def rek jigéen war na ko mën a def ngeen may galgal rek ay at ngeen may galgal ne ci sama kaw di ma galgal rek loo leen galgal xeeb ma góorgóorlu doog sept ans nag li ma xaw a xam tuuti ci aar def ma ko macha allah tubarkalla jëm ba créer. comprendre c' normal c' normal pour ñu galgal ma c' normal pour mën a bëri ñu kar ma ah duñ ko def woon du baax na man leen ëpp présence si scène gën leen charmante ëpp leen charme ëpp leen feeling ba pare nag jeeg laa na man ku ma am comme rival adversaire da préparer sa bopp man ma taxaw rek si scène sans rien taxaw rek déguisé wu Ngone Ndiaye en tant que rek spectacle kon yoon la pour ñu kar ma mais kar bi doy na nan ma mu def ma ken dara ma ngi la pay rek di bëggal sam bop di am jom tous les mercredis ak tous les dimanches ñepp di ma sétan ci bu ko yak nan bàyyi soxor ge kiñan gi soxor ge kiñan gi bari na ci Sénégal surtout ar bi resa non la te bëggo ko di ko fréquenté sa nawle di ko wax lu ñaaw na fa ñaaw te mi ngi fi soxor du fi jog kiñan du fi jog bañ wéx na may traité ko laal te paaka balay rendi sa waaye koy das jox la nan ma baal waaye yàlla ak yonent bi bàyyi leen ma man amuma ndey amuma bàyyi benn mag bu góor laa amoon di ko wétli ko yàlla def li gën ma doon cundum nag waaye ma bari jom jom ji ba tey mi ngi ci man man kese ngay xool ci artiste bi ma juddoo ba léegi musuma beru je vis avec ma famille njaboot nag ba may ndaw ba léegi res ko nag ci fulla ak fayda ak dignité xiifuñu mariñu raflewuñu bi ma nek tok na sept ans def mako duma reprendre nit ñi dama ma ngeen ne loolu du am di soxor de iñaan di xol ma nek la paye diko fessel ba ci geej gi ngeen ne loolu du am ñu jox ma la paye dimanche bi ma koy feesal ngeen ne loolu du am artiste xol ku ci nek du wax suñu ñew ci sa milier nga defee ne dañ laa baal si ndekete dañuy ñew di la yàq di la jow ban lu koy nett li Ngor Njaay defu kenn dara man yéenuma kenn lu bon damay waxtaan ak ñëpp